opposition seen kàddu yëpp mooy Macky du bokk jàpp ne loolu mooy principe maanaam mooy li leen boole sax nag far ci seen front bi nga xam ne mettre nañ ko en place bërki démb waaw loolu seen responsabilité waaye nañ ci toll buñ ci tollee dinañ xam ku ci bokk ku ci bokkagul waaye ne léegi war a waxal ci Sénégal waxal tu waxal bi ñuy dund jamono ji fi ñu nekk ak ni nga ko waxee sànq li ñu wër et tout am nañu suy buruxlu yéen la ma ci seen responsabilité on travaille pour satisfaire les, les doléances des populations on travaille pour apporter une solution. Au, malheureusement gars yi ils n'en parlent pas mais loolu mooy problème président Sall boo waxoon coow li jeex. waaw mais kuy liggéey nag mënoo di liggéey di wax. Abdoulaye Wade l'avait pris ses responsabilités assez tôt. dama ne liggéey kuy liggéey du wax ñu ngi liggéey. ñi féetoo wax dinañ wax ah? dina jot bu jotee ñu wax dañ ci dox loogu. baabu boobaa coow li du du du comme ni ñu waxee. su boobaa li ci war rek ñu def ko. ce discours li ci war ñu def ko mooy lan non li ci war ñu def ko buñ ci tollee ci déposé candidature bu conseil constitutionnel newee waru ko def war ñu def ko on bu newee dafa dafa war a déposé dafa dafa war a euh, candidature mi accepté na ko li ci war ñu def ko wàcc sur le terrain dem wax ak sénégalais jour vote ñoom ñu leen wax bu leen doyee ñu voteel ko bu ñu demee ba am ñu bokk ci yéen ñu naan Macky Sall warul déposer candidature loolu ça doit vous parler parce que quand l'opposition le dit je suis d'accord ñoom ils sont dans le rôle mais bu ñu ba ci biir ku mel ne Idriss Seck wax ko euh, ku mel ne euh, ñi faral Aliou saar bu AFP euh, wax ko jàpp ne <coughs> nga baal ma président Sall il a fait ses deux mandats dafa war a dem là war ngeen taxaw amal am am benn benn taxaw sedd comme comme on la dit li arrivé Ablaye Wade yéen wuñ ko Macky Sall. dem élection perte alors que waroon nga dem tranquillement kuy perte mooy ni ko mag yi di waxee kiy dox mooy kiy daanu mooy kiy dox mënuñu toog benn place di def ay hypothèses yu dul jeex nee naa la on est dans le temps de l'action dañuy liggéey mandat bi jeexagul président Macky Sall dañ ko fal en 2019 pour sur la base d'un programme te programme bi ñu koy dérouler donc tollaguñ fa. kenn mënul matale lépp. yaa ko wax sànq boo demee Armelia fekk fa ñoo xam ne amoon nañu ay kii maanaam comme si voilà l'APR Benno euh, n'avait que euh, comme koo xam ne mën na mën na yore loolu la loolu la demee wala lan la xam nga ñun ñoo nekk di ci wax ndax président sax nee na ma waxagul waaye ñun suñu yéene la ñu wax suñu responsabilité la keneen bu amee beneen beneen beneen point de vue mm-hmm. mais c'est ça responsable xanaa dañu nekkatul démocratie nag et c'est ça qui fait le charme de la démocratie. sauf que c'est que ku nekk ku nekk wax li nga xalaat. mais nañ ko def ci euh, la ñu xam débat d'idées. Mhm. muy am contradiction mais li ñeen ñenn ñi xam nga mooy lan euh, madame la ministre. Mhm. mooy référendum bi nga xam ne président Sall proposé na ko Sénégalais yi en 2016 ñu bëri jàppoon ne ça allait régler définitivement euh, le problème du mandat malheureusement 5 ans 6 ans 7 ans après on en est encore là. waaw la wax. référendum bi waaw de président Sall dogu woon le mandat est de cinq ans nul ne peut faire plus de deux mandats successifs mais et même au-delà de ça le président Sall yi fi daf ko dab parce que moom dafa ne woon day wàññi mandat am cinq ans def ko sept ans def ko cinq ans mhm. mais dëkk dafa am charte bañ ko ne mënoo ko def defu ko bi mu koy wax xamu ko woon ah, je sais pas xëy na xamu ko woon xëy na yéenam la waxoon xëy na je ne sais pas je voilà mënuma nekk ci mënuma gént géntam la parole d'un chef d'État tey la constitution. Mm-hmm. li mu ne président ni ma ko bëggee ni ko ni ma ko bëggee laa koy defee ni ma ko sentiree laa koy defee est-ce qu'on ne serait pas en insécurité. Mm-hmm. bu ñuy poser yenn actes yi wala di laaj yenn yi tamit nañu xool ndax euh, on va le faire au cas par cas wala c'est selon wala dañuy tëral dara li nga xamante ne ñun ñëpp moo ñuy tënk. ñëw nga sànq.